Ousmane Seck et le Ouz Band présente Mandiaye Seck et le Ouz Band en live. Mandiaye Seck et le Ouz Band en live fan la mbokk yi sur la route des Almadies soirée te loo njukkal jigéen ñi le 9 mars. attention première partie ba ku koy tëgg ñu ne son frère Mohamed Seck attention famille ba daje nañu booloo nañu àndandoo nañu kuñ ko pare ne ñu ne monsieur Saliou Khar Ndiaye alias Francky à Paris Assane Eric Faye à Paris Fatima Zahra à Paris Binette sal à Paris Lamine Gueye à Paris Fallou Gueye transitaire Oumar Sow opérateur économique Serigne Dame Teranga Pape Mor Dramé Serigne Saliou Touba Abdourahmane Gueye Abdou Chéri Mam ak Hamadi Kane ak yaayu Mandiaye Seck yi di Aïda Deyman Ndaaj Ndiaye Sali Thiam Babel ak sërëm yi di Awa Balde Bëkkalaay Soxna Aydara Seck Aji Yaago Atlanta Mami Diop Thiat Diop Coro Fall Anta Ndiaye Rufisque Mandiaye Seck et le Ouz Band O5 attention sargal jigéen delloo njukkal jigéen ñi le 9 mars àndandoog rakkam ji nga xam ni moo di Mohamed Seck affaire bu nar a graaw affaire bu nar a ngewele affaire boo xam ne du yomb de entrée 5000 VIP 10 000.